ñu am tuuti luñ ci fàttali rek xam ne suñu borom dafa digle ci Alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum nag kon nañ xam ne jullit bi mbokkam dëgg-dëgg mooy ab jullit waaye lii bëgg di bëgg xew ci réew mi mën naa dem ba àgg foo xam ne kenn du xam fu muy fu muy jëm te alxuraan dafa santaane woon ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasatan waalamu anna allaha sadidul xiqaab kon euh, fitna aku ay yow mi ko taal bul xam fa mu yem fu mu jóg kon nag ñi bokk dëkk ci am réew war nañu xam ne nañu sàmmonte diggante àq dëkkandoo ki nga xam ne bokku leen diine sax taalaw ila kalimatin sawa loolu la ci alxuraan santaani waxoon na ci alxuraan itam ne wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati ahsan kon ñi nga bokkul diine sax dañ bokk ci ahlul kitaab booy def ak ñoom mujaadala na nga xam fa nga war a tàmbalee fa nga war a te def ko ci wax qawlu linnaasi husnan looy wax nga wodd ko ba mu rafet ndax mu amal njëriñ nit ñi kon loolu ñu ngi ci bàyyiloo xel nii bu baax ñu xam ne wa ahbibil muumina lil imaani wa tubxi lil kaafira lil kufraani ki nga xam ne yéen a bokk diine lislaam na ko jàpp sopp ko ngir li nga xam ne ab doon na ko jullit yéefal biir bañ ko ngir lu mu doonu jullit walaw ata ilayka bil jinaaya zaaka wasa ni ko sëriñ bi waxee jawharu nafis donte jullit bi daa te yéefar bi tooñu la kon loolu listaan da ko santaane kon nag nit la mu wax ne moom la doon muy doon jullit war nay sàmmonte li listaan santaane ci digg ba mu bokk jullit yi kon daal ñi ngi fàttaliwaat ñëpp ñu seet li nga xam ne réew mi noonu la sosoo woon ba nëgg ni mooy nataawan fii maxtalaf na fii maxtalaf na wa nataxaawar fii maxtalaf na li nga xam ne maase nañ ci juboo ci déggoo ci ñu fexe ba sàmm ko déggoo ca li nga xam ne am nañ ci wuti rek ñu waxtaan ci fexe ba déggoo ca waaye ñu xam ne kat waxante lu ñaaw ci biir tarixa yi wala ci biir diine ji yokkul lislaam te ma yëwut tuyaaba ndax jëw sax dañuy wax ne boo jàkkaarloo nit di ko wax loolu jëw la jële naa nag mu fàdd la nga di ko wax te eh, ni ko Sëriñ Tuubaa misaali ci jawharu nafiis rek dafa wax ne xaqiiqatul xiibati doona rey bi zikruka xaala saxsi baxda la rey bi ba ci biir mu wax ne am na fu mu ko nettale ci biir xisa boo xam ne ci rasulullahi la amoon ka ko am kenn ci ummahaatu moom wax ci jullit ñi wax ne haasi tawilun zeyluha faqaat fa saqatat mudxatun laxmin fa xalaf salla alayhi llahuma xaasu sharaf bi annaha law hadamat la bi la budda min duxuliha naaru isal mawtu yaani ki ko romboon mu ne kii de yére yum sol dafa gudd loolu mbi ci ngi laal suuf rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko gàqal mu gàq lu lu mu deret génn muy médd mu ne ko rek tudd sa mbokkum julli fu mu néew la demee ne ko loolu nag bu reesoon kon xasante ci biir jullit lu diis la ci biir lislaam tey xam ne ngëm dafa for ci nit kenn ku ci ne ni ko xaddis ba waxee rek kullu mawludin yuradu ala fitra kon nañ xam ne kenn ku ci ne la suñu borom eh, bindi ci yow xam ne loolu nga nar a gëm loola yàlla dogal na ko moo tax afa anta tukrihu naas xataa yakunu muminin nit ñi kenn du leen forcé ji faw nga gëm ndax lañ xas ba boo doon wax ba déwén suñ suñu borom tudd ko it mënu a fexe ba jëli ca kon nag sëriñ Touba am na lu ñu wattandiku la woon ci. waxtaan wi mujj yi neewoon na li dal diggante nasaraan yi ak yahud yi na ngeen fexe bu mu leen dal yéen jullit yi moo waxaalitil yahud laysati nasara ala shay'in waxaalit nasara laysati yahud ala shay'in ñee ne ñii nekkuñ ci dara ñee ne ñii nekkuñ ci dara loolu werante la wax ne kenn xamut fu muy ak ji te amutu njariñ amutu mujj kon kenn ku ci ne la nga gëm sa morom gëm ko na la ko ñépp sàmm leen loolu mooy indi jàmm ci réew mooy indi jàmm ci fu mu mën a doon te jàmm kat fu mu amut nit du tara jàmm yàlla jàmm fu mu amut nit du tara lekk jàmm fu mu amut nit du tara nelaw falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf ci jeexal nag li ma ci bëggoon a leeral mooy li indi wax ji mooy téere boobu yi nga xam ne boroom xam-xam yi gën a siiw ci réew mi taalif ko muy Iba Der Thiam moo indi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil xaqi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay netti la xewoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngilewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci. fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee maandu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo sama sa moom di la ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii la mu wax ak kii la mu wax waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte bari moom loolu moom ka ko bind bu ko may dindiwaat na ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumaat te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama mën naa fi fitna ci biir réew kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu murid reconnaître téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murid bañ ko déggee kenn woowu leen ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca ndaje bu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko këri diine yëpp ci Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen version ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba dañu mujj xamaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay ndax naaj joxe benn firde bu gàtt rek am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne Sëriñ Tuuba ci sareexa ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall di jëblu kon loolu la muy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ko ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Sëriñ Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee ci loolu njuumte la am na ci feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca lam ci wax it nee na Mamour Anta Sali moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem njàngi loolu di wut Mamour Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université la ndax léppoon ci réew mi ca yooyu jamono bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arud wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université la kon ñi ñi ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu biir tam ne nañ ko koy diggale ci kër gi yépp ndax ñoo ceew batte fenn fu ci ne na dem laaj leen ñu jox ko seeni mbind mu boole ko yam am ñu dóor ko ci biir topp ko bu téere bi leer mu génn ñëpp xam ne ama na njëriñ Sénégal waaye nag mënee su ta bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee moom mu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu Tuubaa ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal anduñ ci anduñ ci tey anduñ ci ëllëg li fi defaraatuñ ko ba téere bi tegu ci loolu moom ñu ngi koy wax ci kanam àdduna sépp di ko xam bu fekkente nag nanguwuñ caa dellu si waat ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek la waxaat ba fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacké daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jën ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat yi bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci lu ma ci leer euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñ borom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même réew te ñu fi dëkk ñëpp. ñoo bokk réew te suñ borom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi te suñu kilifa yu baax ya fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgëni lépp di rafet kon loolu lépp loo xam ne mën nañ ko ci góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continuer ndax koo xam ne mënoo toxu mënoo jóge fa dëkk kooko jàmm rek mooy la la jëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa